بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi jéggalu sunu borom di leen jéggalu ci xaar bi mu génnoon nekk ci programme yu mel nii depuis ci suba ñu demoon Mbambilor amoon fa conférence diggante takkusaan bi moo tax ñu xaw a tardé tuuti tey ba tey ñu ngi ci suura Al Imran ñu ngi jël tey aaye cent cent cent quarante six ak lan quarante sept ak quarante huit quarante neuf mu nekk ñeenti aaya yu nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal juróomi mbir mbir yooyu bi ci njëkk mooy al ibtilaa ay yooyu jëloon nañ ko ah kay waka ayin la ñuy tàmbalee mooy yooyu kon ñetti aaya la 46 47 48 ñetti aaya yi ñuy jàng ñeenti mbir yoo xam ne ñeenti mbir yooyu ci biir aaya yi ñuy jàng ci la nekk mooy min hidayatil ayat bi ci njëkk mooy at targhib fil iqtidaa'i bi salihin aaya yi dañoo ñëw di ñu soññ di ñu bëggloo di ñu xemmemloo pour ñuy roy nit yu baax yi li tax réew mi léegi nit ñi mënatuñoo baax mooy ñu bon ñi nañ def référence ci télé yi ci rajo yi da ngay gis Sénégal dañuy jël kenn ko bon defal ko promotion ba pare def ko modèle def ko ay poster génne ko ay image def ko sonore médiatiser ko ba ñëpp di ko roy fekk ku bon la fekk ku baax la ñu waroon def noonu ku baax la ñuy gis mu baax ñu bëgg nit ñi baax ñu war ko médiatiser ñu ne diw dafa baax diw nii la mel diw na def na nàngam pour nit ñi roy ko mais déedéet Sénégal xam nga nu ñuy def dañuy yëkkati ku bon daal di daaneel ba ma ku baax noo moo tax dëkk bi mënta dem ku bon ku ne ñu bëgg mu siiw ak lu bon li muy def ak lu bon li muy wax wala lu bon li muy liggéey fan la dëkk bi di baaxee su ko defee nit ñi bu ñu xëyee suba lu bon loolu sax bu fekkee ne waa ji daf ko waxoon wala ñu wutal ko yére def ko modd wala ñaata yoon ngeen gis fi tailleur yi di ñaw ñaw boo xam ne lañ koy tuddee baaxul xoolal xëy nañ fii rek xale yu góor yi di sol tubéy boo xamante ne kenn xamul ñu ne la ñu ne peew peew muy peew peew xanaa doxat lay gën a nuru de ngeen baal ma wala loolu dafa am yow ba pare nga gis ñëpp commencé di ko sol foo tourné bi waaw tubéy peew laa sol te tailleur yi commencé ñëw peew bu dee ñu ne bul faale yére boo xam ne bul faale maanaam ki ko sol dafa ne bul faale kenn sol ko maanaam loolu moo tax ñun duñ dem fekk bu ñuy roy kan lañ war a roy ku baax kuy def lu baax borom bi subhanahu wa taala gis nga pour yonent bi baax yàlla dafa dajale yonent yëpp comme modèle teg leen ci kanamu yonent bi ne ko ulaika alladina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñii laa baaxal soo bëggee baax yow yonent bi xoolal ñii yonent bi xool leen daal di baax ñun yàlla daal ñuy joxoñ baaraam ne yonent bi ne bu ngeen toppee yonent bi baax wa in tuti'uhu tahtadu mbokki jullit yi yàlla dafa bëgg ñu roy nit ñu baax ñi waaye ci lan fi imanihim roy leen ci seen ngëm nañu baax ñi gëme woon yàlla ñu yëm a gëme noonu mais beneen problème a ngi fi encore ban problème mooy sénégalais yi dañoo gëm ne ñu baax ñi kenn mënul mel ni ñoom boo ne alaaji Maalik ñu ne wii may ñu jàmm xam nga kooku kenn mënatul mel ni moom Sëriñ Tuubaa ñu ne kenn mënul fu ñu ko teg nit ñi mën leen raw ma ne nit mën na raw laa wax sëriñ si tëdd fii ñun ñoo góorgóorlu rek ñun ñoo yaafus da ngay gis fi benn laccax laccax koo xam ne bi mu juddoo dañ ko doon naanal fonde mu mujj léegi ngand am doole lu tax di alteeru ba punkal mën ñëpp kenn ñemeetu ko xool lan la def ba toll noonu waaw lu tax ñun mënuñu tàggatu ci lu baax comme ñee ni ñu baaxe woon ba ñun ñu baax soo waxee ñu ne non kenn mënul mel ni ñoom dangay sonn nag tey boo ne woon damaa bëgg a mel ne kenn ku baax nga tudd turam alaaji Maalik wala sëñ wala wala ñu ne yow yow yow de da nga dof ii waaw ñooñu ñooñu yow déedéet maanaam ñooñu dañoo jàng histoire saxaaba yi ak yonent yi ñu gis ñooñu ni ñu baaxe woon ñoom ñu jéem a baax jaar noonu ñun nag lu tax ñun mënuñu jaar foofu ñooñu dañ doon julli dañ doon woor dañoo téye woon seen bopp dañoo ragaloon yàlla ba ñu mel noonu yàlla dafay jóge alxuraan dafay jóg hadis yi dafay jóg pas-pas dafay jóg ah gars yi nee nañ fu ndox daan taa boo fa demee waaw lu tax ndoxam fi ba léegi ñun ñun amuñu tepp-tepp c'est parce que problème bi du loole problème bi du alxuraan de du diine ñun la ñun ñoo setul wallahi bu nu setoon raw leen Malik ibnu Dinar am na boroom xam-xam yooyu diingat xisaam ne xisaam wérul am na ñu ne histoire bi wérul nekkul réel mais ki ko nettali du fen lan la wax nee na Malik ibnu Dinar gendarme la woon wala police xam ngeen lu doon métier naan sàngara moom mooy nettali ci boppam nee na lu bon la def lu bon lu ne def naa ko lu bon lu ne lu ngeen xalaat def naa ko bi mu ta bëggee takk jabar mu takk jabar takk jabar yàlla may ko doom bu jigéen mu tuddee ko Fatima mu bëgg doom ci lu raw lu mu bëggee boppam gis ngeen ni mu saay saaye muy boole ci mu am doom bu jigéen doom ji rek la bëgg saa yu xëy doom ji bu wàccee doom ji benn bis mu wàcc rek doom ji daw gàttandu ko boobu rek doom ji am na ñetti at mu jël ko sànni ko capté ko foon jël sànni capté jël sànni rek yàlla def mu rëcc rek mu ne rang ci dër bi dee doom ji dee mu ne dootu ko déggati mu gën a yokk ci mbon naan sàngara benn bis mu ne tey dinaa naan naan koo xam ne musuma koo naan mu naan ba mënatul taxaw mu tëdd nelaw mu gént yow mal xiyaam ñuy woo jaam ñi ci kanam yàlla diw doomu diw foo nekk taxawal fii ba ñu woo turam Malik ibnu Dinaar taxawal ci kanamu yàlla mu daw bi mu dawee rek benn jaan topp ko yeew bu rëy mu fëx fëx yu métti jaan ji topp ko mu dajeeg benn góor bu sol yére yu weex màgget góor gi dimbali ma góor gi ne ko awma doole lii mënuma ci dara mu daw góor gi ne ko nu may def waa ji ne ko nu may def mu ne ko dawal jëmboor bi nga xool ndax am na nit ñu fa nekk ñu dimbali la mu daw bi mu dawee daw yu métti yëf yi topp ko bañ koo bàyyi ndeke jahannama lay teer yi mu daw rek ne nii rek yegg jahannama te jaan bi yegsi na mu ne mu ne naa taxaw mu lekk ma beneen xel bi ne ko déedéet duggal ci biir safara si moo gën a yomb beneen xel bi ne ko waaye dawal rek di nga rëcc mu tourné dawaat romb góor gi góor gi dimbali ma ci lay góor gi ne ko aw ma doole demal ci montagne yii amaana di nga fekk ay nit ñu dimbali mu dawaat dem beneen côté ci mon benn montagne waaye bi mu yegsi ci montagne bi mu dégg ay xale naan Malik ibnu Dinaar a ngi nii kii mooy Malik ibnu Dinaar ñu naan Fatima doomam bi Fatima sa papa ngi nii Malik ibnu Dinaar ubbi leen rido yi ubbi leen rido yi mun nañu ubbi rido yi rek mu gis xale yi rek doom ji mu ne mu gis doom ji ci biir xale yi doom ji daal di ñëw rek ne jaan ji acca rek jaan ji daal di tëpp rek doom ji ne ko papa ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق papa yow jotagul nga gëm yàlla ba léegi rek mu yuux mu taf doom ji ci dënn bi mu ne waaw doom fii fan la mu ne ko fii mooy aljanna mu ne ko xale yi nag dañuy jàng alxuraan mu ne ko ñun ñëpp dañoo jàng alxuraan mu ne ko waaw doom jaan ji ma toppoon nag mu ne ko sa jëf ju bon la yow yaa ko may doole yaa ko yar ba mu màgg toll nii moo tax mu bëgg laa lekk mu ne ko waaw góor gu màgget gi nag mu ne ko sa jëf ju baax la amoo jëf ju baax moo tax amul doole maanaam ju bon ji moo ëpp doole lu baax yi papa ragalal yàlla te nga tuub ñu ne ci biir gént gi doon nelaw rek mu dégg nodd asalaatu xayrum min an nawm musul julli musul dem jàkk xamul yoonu jàkk ci mu ne mu yeewu ndeysaan ci ay jooy sangu jàpp sol ay yére jubal jàkk ci mu ñëw dugg ci jàkk ji kàbbar imam bi jàng fatiha daal di jël aaya bi alam yaani lillazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alhaq mu yuuxu ci biir sàppe yi ah aaya bi ko doom ji jàngal aaya boobu la imam bi jàng bi mu paree imam bi ne waaw jaamu yàlla bu doon yuuxu kan la mu nettali ko histoire bi mu ne ko yow yàlla moo la nar a baaxee bu yeboo nga tuub xoola kooku tey imaam ibnu dinaar mujj na fu ñu waxee nit ñu baax ñu waxtu la téere boobu gis Maalik ibnu dinaar ci ay téere yu mu bind ci lu baax luñ koy nettali néew na borom xam-xam buy bind téere ba pare te du ci dugal Maalik ibnu dinaar ci fu mu mujj nekk ci mbaax waaw kooku lu tax mu egg foofu dafa nangu góorgóorlu léegi ñun loolu mooy suñu problème dañu war a roy yonent yi ci ngëm waaye ak seen jihaad guñ doon jihaad waaye ak seen muñ wa xusnu aqwalihim ak wax ju rafet juñ daan wax suñ nee nañu roy nit mooy lu baax luñ doon def ñun loolu lañu war a def roy leen ci ngëm roy leen ci jihaad roy leen ci muñ waaye roy leen ci ay wax ak jëf yu baax yuñ doon def loolu mooy bu njëkk bu ñuy jàng ci aaye ñetteel mooy fadilatu sabr ngëneelu muñ muñ dafa am importance mais asaf léegi nit ñi duñu muñ ñëpp ay jàmbat da ngay xëy sax gis benn sénégalais ça va moom sénégalaisement hein koo dégg mu ne la sénégalaisement loolu lu muy tekki mooy ça ne va pas neex te jullit moom dafa wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wala mu ne alhamdulillahi ala yonent bi bu neexoon day sant bu mettee day muñ jullit dafa war a muñ lu tax ñun duñu muñ te ñu jàng aaya yi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul fasbir li hukmi rabbik fasbir fasbir aaya du jeex aaya du jeex ci muñ kon dañuy jàng roy yonente yi muñ waaye wal ihsaan ak rafetal li hubbillahi taala ci bëgg yàlla tabaraka wa taala ah as-sabirina wal muhsinin bëgg yàlla ci muñ ak def lu baax ñetteel mooy fadilatul istighali bi zikri war nañu taqu tudd yàlla mala saf ñun ñuy wate suñu bopp sunnit sunnit dañoo topp di weddi di weddi di weddi ba weddi waale lu dagan gars yi ñoo mun a weddi loo wax ñu ne bidaa la loo wax ñu ne daganul loo wax ñu ne loolu du sunna dañoo topp di weddi di weddi di weddi ba weddi waale lu baax mën a tudd yàlla yàlla moo ko santaane wazkurullaha ah zikran kasiran wa sabbihuhu bukratan wa asila yooyu ay aaya la zikr tudd yàlla yonent bi sax dafa bind azkaru sabah wal masa ñun war nañ am ruq ruq wala place yoo xam dañ fay toog di tudd yàlla suba wala ngoon yaa xam ban temps nga koy def suba ba ngoon diggante avant ngay julli ba nga jullee suba ba fajar gi weex war nga am tudd war nga fi tudd yàlla boo jullee tàkkusaan ba bala ngay tëdd war nga fi tudd yàlla waxtu woo xamante ne doo fi tal jabar doo fi tal doom doo fi tal benn mbokk doo fi tal kenn tudd yàlla toog dudd mais néew na ci ñun tey ñuy def asgar yooyu wala asgar yi nga xam ne moom la ñu sunnaal ci yow booy lekk booy naan booy dugg duus booy génn duus booy seetu booy looy def booy sëyeeg sa soxna asgar yooyu dafa bokk suñ dund boo toogee boo toogee booy jóg booy dugg ci duus bi boo gi ak maanaam yonent bi daf ñu jàngal lépp looy def dafa am loo war a wax lépp looy def lépp looy def dafa am loo war a wax parce que yooyu dañ ko war a jàng mokkal ko bu njëkk ba nit ñi respecté woon nañ ko mais léegi da nga gis ab sunnit boo xamante ne boo ko ne waa yow booy seeg sa soxna looy wax mu ne ah loolu lu ñuy wax am na lu ñuy wax di seetaan naa benn télévision bu ñëw ci kër benn mbokk moo soxnaam ñu toog ñu laaj leen laaj leen laaj leen laaj leen ba dara dasu loolu débat baa ngi jeex waa ji ne ko waa léegi nag yaag sa soxna da ngeen di def benn concours dañ leen di laaj ne waaw bu ngeen di sëy lu ngeen di wax waa ji xamu ko ni dama koo fàtte ñu laaj soxna si mu trouvé ko dañu war a di jàng ñaan yi ñu xam fu ñuy toll lu ñuy def booy dugg oto boo wàccee oto looy def loolu mooy tax doo dund bidaa lan moo tax ñeneen ñi bu ñu génn seen kër du ci sotti ndox fajar dañoo bàyyi sunna xamuñu lu ñuy def mais ku xamoon li yonent bi joxe xam ngeen li yonent bi joxe moo ëpp sotti ndox ki joxe ndox ki joxe na sotti leen barki barki fan yi passé damaa dem benn kër ñuy añ rek ñu am goyendu benn gan ñu ne gan bi ganu sëriñ la ñu teg añ bi rek mu jël pot ndox ne ko cuc cuc cuc cuc cuc ci ceeb bi waaw sotti ko ci ceeb bi man man gisuma ko ala kulli xaal toog naa ci bool mais man gisuma ko mais ndeke ñi nekk ci bool bi gis nañ ko bi ñu paree añ mu dem am ci nit ñi mu ne kii yàq na suñu añ bi ma ne ko lan la ko yàqee ñun ñu añ ci añ bi lu mu nan la fi def mu ne daf cee sotti ndox avant ñuy commencé moo tax ceeb bi tooy ma ne ko ah mu ne waaw ma ni borom kër gi est-ce que kii li mu wax dëgg la mu ne ma dëgg la kay sotti ñoom dañoo ñoom dañ leen wax ne balaa ngay lekk na nga ci sotti ndox ni mu seddee noonu la sa lépp di seddee mu ne moo tax lu ñuy lekk rek dañ ci sotti ndox lu ñuy lekk dañuy sotti ndox ma ni waaw léegi yonent mi wax nañ jàng ñaan bii ak ki wax nañ sotti ndox ñoom ñaar kan moo ëpp xam-xam ah kan moo gën a ragal yàlla kan moo gën a baax léegi yonente ne def leen lii loolu mooy problème mu Sénégal yonente day wax def leen lii benn waaye ne def leen lii ñu bàyyi li yonente bi wax di def lu keneen ki wax boo waxee ñu ne ah wax dëgg yàlla de man kii jox ma lii wóolu naa ko xam naa ne waaw kooku ak yonente bi kan moo gën a wóor loolu mooy sunu problème yaakaar naa fii ku fi baax yonente bi moo la gën a baax wala ba leen d'accord woon ci loolu wala da ngeen am Sénégal ku gën a baax yonente bi ah yaakaar naa ku fi ragal yàlla yonent bi moo la gën a ragal yàlla kuñ fi rus wala ñu bëgg la yaakaar naa yonent bi moo ci raw annabiyu awlaa biha kon nag nañu xam li ñuy def lan la mooy lan nañu xam ne yonent bi duñ suñu moroom mu ne wa du'a indal masaib nañuy ñaan yàlla bu ñu ay musiba dalee musiba wàccee suñu kaw nan ñaan yàlla ak ay jafe-jafe ah moo gën ñuy tuumaal ay nit wala moo gën ñuy saalit wala gën ñoo gën ñuy ñaxtu moo gën ñuy jooy moo gën ñuy jàmbat moo gën ñuy kepetu jullit bu ko jafe-jafe laalee day sant yàlla day tudd yàlla day dénk boppam yàlla bañ nañ ko ba nee nañ musiba bu wàccee ci sa kaw waxal inna lillahi waaw waaye ñun Sénégal bala ñuy dellu ci yàlla rek fekk mbir mi dem nañu ne ah léegi de xanaa léegi nag yàllaa ci des xaaral nag ñu jàpp ci yàlla waaw comme waa ji dee na yuuxu nga ba sonn ñëwul ñëbbu ko ci morgue bi nga yuuxu ñëwul ñu sang ko nga yuuxu ñëwul ñu jullee ko nga yuuxu ñëwul ñu teg ko ci oto di ko yóbbu armeel yi nga yuuxu ñëwul nit ñi dem suul ko ñibbisi nga xool ñëpp ñëw ñëwul nga yuuxu ñëwul ñu daj ñu denc yóbbu de tekki baas bi delloo sées yi delloo basang yi ñu doon jaale ñibbi ñëwul nga ne léegi na xaaral ma muñ nag c'est trop tard mu muñ loolu koy muñ amatu ci dangaa ñàkk pexe as sabru inda sadmatil ula loolu mooy muñ juróomeel mooy karamallahu karamallahu almutajalli fi istijabati du'a ibadihi sabirin al muhsinin ndeysaan yàlla mbaax na mbaax goo xam ne yàlla màgg na yàlla tedd na tedd boo xam ne moom gëmmul nelawul soriwul jaamam yi rek lay déglu ku ko ñaan mu may la wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai mata isa daani yàlla soriwul yàlla nelawul yàlla gëmmeentuwul yàllaa ngi nii jege ñu boo ko woowee mu wuyu la kon nanuy ñaan yàlla yàlla nee na bu ngeen ma duloon ñaan duma leen faale adduwaa huwa al ibada jàng nañ loolu yonent bee ko wax kon mbokk yi aaya yooyu la ñuy jël tey bismillah mu nekk ñetti aaya bismillahi arrahmani arrahim wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun fama wahanu فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين borom bi nee na waka ayin bëri na kasiru min al anbiya waka ayin min nabiyin bëri na ab yonent boo xam ne ndeysaan ba mu jógee di liggéeyal yàlla am na ay nit ñu ko topp di ko jàppale ci liggéey ba ba mu jógee di woote ba mu jógee di xeex ba mu jógee di leeral ba mu jógee jëfe jaam ñi ci yàlla bëri nañu ko topp waka ayin bëri na min nabiyin ci ab yonent qaatala boo xam ne xeex na maahu ànd ak moom ribbiyuuna kathirun ay nit yoo xam ne dañoo jagleel seen bopp yàlla ci ay nit ñu baax al ulama ci ay borom xam-xam ndeysaan yoo xam ne rey nañ leen ci li ñu rey yonent yi nit ñu baax ñoo xam ne rey nañ leen ci àlla taxoon ñuy rey yonent yi waaw loolu du fi jóg du jeex ila an yarisa allahu al arda wa man alayha tey ci àddina bi li ëpp li ñuy rey ci monde islamique ay borom xam-xam la surtout nag borom xam-xam bu jóg bëgg a jaamu jaarale nit ñi fi yonent bi jaarale woon kooku moom yow moom bal ci bopp rek wala kaso ba nga dee waaye yoon woowu nag mooy yoonu yàlla de yoonu yàlla ku ci nekk da ngaa war a suuraale ne li gën a tuuti ci natt yu lay dal mooy dee rey la loolu dañ ko war a suuraale suñu bopp tey ñu ngi ci jamono sedd un jour viendra Sénégal ñu ne kenn dootu fi waxati diine wala nangam gi kenn dootu ko fi wax ku ko fi wax sa dee xej na ci su boobaa ndax la nu ñuy def dañuy wax suñu sikkim dem ci stade yi nekk ay mbër wala dañuy dem nekk ay rappeur ah wala dañuy toog suñu kër yi ba ñu génn ah déedéet kon xamuñu li ñu taxoon jóg loolu ñu yàlla di nettali wa ka ayin bëri na min nabiyin ci ab yonent boo xam ne xaatala xeex na du moom kese de maahu ànd ak moom ribbiyuuna ay nit yoo xam ne dañoo jagleel seen bopp yàlla ñoo la ñuy wax arabbaniyuun ñoo xam ne yàlla rek rek rek xooluñu kenn ak lenn kasiirun ñu bëree bëri ñooñu ba ñuy xeex fama wahanu doyadi wuñu fama wahanu yambare wuñu fama wahanu lottuñu fama wahanu delluñu ginnaaw fama wala wahanu tremble wuñu lima asaabahum ca la leen doon dal dañ ci bég sax fi sabilillahi ci kawel kàddu yàlla allahu akbar imam ali keroog bañ ko dóoree jam-jam bi ne ko caj mu buddi paaka bi lan la njëkk wax fuztu wa rabbil kaaba texe naa texe naa loolu la bëggoon texe naa jullit noonu lay mel da ngay sax ci dëgg ba dee ñëw parce que dee moom dee kese la de ki dee ci kawlal bi ki jóge ci avion bi daanu ci suuf ki ñu dóor bal ki feebar dee ki yeewu lalam dee dee benn la almawtu waahid sabab yi ñoo wuute waaye dee dee la te dee bu dikkee boo waree dee foo war a dee foofu ngay dee xam ngeen Xaalid ibnul Walid hmm? da doon wax gars yi xool leen sama yére bi sama yaram bi mi ngi mel ne yére Baay Faal xam ngeen yére Baay Faal nu muy mel nu mu mel mu ne sama yaram bi fu ngeen xool jam-jam la dóor nañ fa jaasi wala dóor nañ jam nañ ma xeej wala dóor nañ ma fett yërëm bi yëpp ay ñaw-ñaw la daax-daax yëpp ay cicatrice la mu ne damaa bëggoon dee ci terrain guerre bi waaye tey maa ngi nii di dee ci sama kawlal waaye tàppet yi yal nañu deewaay ku ragal yal na nga dee day wax loolu ci ci feebar mu ne tey maa ngi nii di dee ci kawlal di médd te maa ngi bëggoon dee ci terrain bi mu wax loolu ba caag rek mu dégg fas yi daal di romb fenêtre am daal di yuuxu Iii, yuuxu rek mu jóg mu ne fas yooyu lan la ñu ne ko dañuy dem di jihaadi di kawel kàddu yàlla mu ne dañuy kawel kàddu yàlla may dee ci sama kawlal loolu mënul nekk mu ne biret jël jaasi ji di daw ba ci bunt kër gi mu daal daanu daal dee ndax dañuy kawel kàddu yàlla may dee ci sama buntu néeg may dee ci sama kawlal loolu du man kooku du xaalit mu daw ne day jëli fas bi gàddu jaasi ji bala muy génn bunt kër gi mu daanu dee maanaam loolu mooy diine dee moom yàgg-yàgg dañuy dee rek waaye bu ñuy dee na fekk nu dee ci lu neex yàlla mooy kawel kàddu yàlla ba ñu rey ñu ci mbokk yi yàlla nee na ñooñu doon xeex ci yoonu yàlla doon muñ lima asaabahum ca la leen dal fi sabilillahi ci kawel kàddu yàlla yàlla mu ne fama daafu yambare wu ñu de ñooñu duñu ay yambar fama daafu lottuñu alal qitaali wal inhizam li ajli ma asaabahum min qatlin wa jarahat ndeysaan léeg-léeg léeg-léeg ci sunu ñàkk dégg nga dégg benn waaye mu ne non nga mbir mi bu demee léegi ba dara dasatul ñu ñuy rey nanu bàyyi rek nanu bàyyi rek waaw moo gën ñu ñuy jeexal déggunu diine ñun dañoo ñëw pour jeex bu nekkoon vingt personnes ñu ñuy rey par kenn kenn ki ki mujje warul deltu ginnaaw imam ahmad bi ñu koy duur ci fitnatul quran ndax quran maxluq wala ndeysaan benn dañ ko dañoo sëriñ yi dañoo bëri woon ñu leen di dóor ñuy bàyyi ñu leen di dóor ñuy bàyyi ñu leen di dóor ñuy weddi ñu leen di dóor ñuy weddi ba mu des ñaari nit ndeysaan imaam ahmad ne kenn ki ah yow loo fas yéene wax mu ne ah ma sonn naa de man man bu ma bu ma bëggee dóor damay weddi de damay wax ndax ñu bàyyi ma ndax dama sonn am ne ko baax na gaa yi xëy dugg ak yar yi sëriñ bi ne waaw alxuraan de max maxluuq ñu génne ko ñu ne Ahmad yow mu ne alxuraan kàddu yàlla la du lu nu bind bind kàddu yàlla subhanahu wa taala la ñu ne ko Ahmad tey ngaa weddi mu ne du ma ko def mu ne waa ji ko wax weddil yërndul fenêtre bi mu yërnu gis nit ñëpp fees toog ci ginnaaw kaso bi di moom rek lu mu wax rek lañ gëm mu ne bu ma weddee ñii nan laa leen di def maalag leen ñi ñëpp dem safara ndax man du ma ko def ñu yeew imaam ahmad loo ma doon ñu dina ko imaamu ahlu sunna wal jamaa ñu yeew ko di ko dóor dañ ko dafa dañ ko woddoon ñu koy dóor di ko dóor ba sër bi dagg ñu gis ay loxo wàcc ci kaw asmaan yi di ko waddaal loo moo tax ñu dina ko imaamu ahlu sunna wal jamaa buur bi ne ko imaam ahmad yow kan moo leen alxuraan kan moo leen alxuraan kalaamullah waxu yàlla la mu ne sëriñ ba ma doon jàngal mu ne ko sëriñ boobu ko wax mu ne sëriñ bi ko doon jàngal ñu ne sëriñ boobu ko wax mu ne saxaaba diw ñu ne saxaaba diw ko wax mu ne Aïcha ñu ne Aïcha ko wax mu ne yonent yonent ko wax ba yàlla nit bu amee gëmee benn principe da cee war a dee xam ngeen Galilée ah dama xam Galilée lu ngeen xam ci moom ah dafa waxoon la terre tourne ah ñu ne ko déedéet weddil mu ne leen lan gars yi daal di koy jàpp pendre ko di ko rey ba ci dernière minute bi ñu koy rey mu leen pourtant li ma leen wax dëgg la de après gars yi rey ko noonu la du jullit de mais gis nga dee na ci principe bi mu gëm jullit noonu lay def jullit day dee ci li mu gëm waaw jullit du koo xam ne bu neexee nga gëm bu méttee nga ni maa waxoon waxeet loolu du ab jullit jullit du def loolu waxuma kenn nag misaal laay joxe mu ne wa mastakanu wa ma xadau toroxlu wuñu wa mastakaanu toroxlu wuñu wala dallu li udulihim toroxluñu seen bopp jullit du toroxal boppam ndeysaan Seyd Qutb rahimahullah biñ koy rey ñu ne ko dañoo bëgg rek nga nga weddi li nga doon wax daal ba nga nga jéggulu nga jéggulu nguur gi ñu bàyyi la amaana sax mën nañ la def ministre mu ne leen yéen da ngeen a feebar gaa yi ne ko ah lu tax mu ne sama baat bi sama baaraam bi di joxoñ bis bu nekk ci julli may joxoñ di kennal yàlla naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah may wax loolu sama baaraam bi du téye big muy signeel état laïque sama baaraam bi moo tax bu ñu nee Seydou Koudou pas-pas am wérul lan mooy pas-pas bu wér lan mooy pas-pas bu wér sama baaraam bi du signé ci état laïque nga gis ay borom xam-xam yu ne seen pas-pas dafa wér ñuy signeel état laïque di ko défendre sax nag boo waxee ñu naan assam wa taa na assam même buñ la waxee loo xamante ne dagan assam wa taa ndax buur buur kenn du xeex ak moom loolu mooy diine beneen mu ne leen moom bu fekkee li ma doon wax du dëgg dëgg la lu ngeen di lu ngeen di ut yërmande ci man rey leen ma fekkee ne yéen li ma doon wax dëgg la moo taxoon ngeen tëj ma nangami at kay amul problème nit ki ñaar rek nga koy mën a def mu wax la loo xam ne gëm nga ko nga ànd ak moom wala nga bañ koo gëm su fekkee yow yaa nekk ci dëgg mu ne bu fekkee yéen a nekk ci dëgg bu leen ma yërëm su fekkee maa nekk ci dëgg lii may wax duma ko bàyyi lu dul dee mu tëdd guddi mu gént gis yonent bi war ci fas bu weex ñëw ne ko sa hani an laka bi shahada yéegal sama ginnaaw yéegal sama ginnaaw ndeysaan ci fajar gi mu dégg bunt bi comme bunti weñ la mu dégg seen yi karat kànnaar yi ñuy ubbi bi ñu ubbee mu ne leen lan la ñu ne ko dañ lay changer sa cellule mu ne non changer lu leen ma cellule parce que ci fajar léegi léegi maa ngi gént yonent bi nekk ak man fii di ma war ci fas bu weex di ma ci yéegal may war ci ginnaawam ngeen bëgg a ñëw léegi ne da ngeen may changer cellule xanaa cellule ma jógee cellule àdduna jëm cellule aljanna la. mu xam ne dañ koy rey bi ñu ko jëlee takk buum bi ñu bëgg a takk loxo yi ki bëgg a takk loxo yi mu ne ko pour lan ngay takk sama loxo pour lan la mu ne ko non dañuy mu ne ko déedéet sama loxo bu ma kenn takk ñu bëgg a jël dugal buum bi ci baat bi mu ne bu ma kenn dugalal may dama dugalal sama bopp man ragaluma dee waaw xam nga ñun lu tax ñu ragal dee xam ngeen lu tax ñun ñu ragal dee ku ko xam ñu wóolu suñu bopp nii bu ne woon léegi jumaa ji naa am ku ñëw dee man maa njëkk a dugg fi ci ginnaaw wiiri nii génn buntu imaam keneen ne ah est-ce que mbokk yow pare woo pour dee kii ne noonu nañ laaj ki ñu ñëw ñuy ñëwaat ba affaire bi ñëw fii dina am na benn góoru séeréer bu toogoon naan yàlla naa dee man dee dafa war a ñëw dee ne këcc kanam ne ko dañu ñëw pour nga dee mu ne seetal xale bi kii de xale la de waaye moo ma mag loolu dafa mën a nekk xale la waaye moo ma mag nañ ko laaj loolu mënul nekk ñun ñëwuñ dee allahu akbar ñun ñëwuñ dee parce que wóoluwuñ suñu bopp wóoluwuñ fi ñu jëm ñooñu wamastakaanu toroxluwuñu yambaruñu yaafusun wallahu yàlla yuhibbu bëgg na asaabirin ñi muñ allahu akbar mbokk yi aaya bi fan la jeexee yàlla bëgg na ñu muñ ndeysaan kon lan lañu war a def pour yàlla bëgguñu wallahu yuhibbu sabirin yàlla bëgg na ñu muñ su ñëwoon tey Macky Sall bëgg na ñu nangam bëgg na ku def nangam kan ma ko dul def fii ci ñun ndeysaan yàlla ne bëgg naa ñi muñ wallahu yuhibbu sabirin xoolal nit nekk ci suuf yàlla bëgg ko yàlla bu bëggee nit nu muy def day woo jibril ne ko bëgg naa diw waxal malaaka yëpp nañ ko bëgg jibril woote ñëpp bëgg ko yonent bi mos na toog ne jibril ñëw wax ak moom bay dem rek ne ko bu aba zar ñëwee nga nuyul ma ko yonent bi ne ko ah jibril da ngaa xam abu zar mu ne ko moo mbooleem malaaka yi ci kaw asmaan xam nañ ko yonent bi ne waaw yéen jibril nan ngeen def ba xam aba zar ñu ne ndax dafa bëri lu muy jàng xul wallahu ahad moo tax yàlla xam ko malaaka yi xam ko ñëpp xam ko jibril xam ko ndax dafa bëri lu muy jàng xul wallahu ahad mbokk yi kan ci ñun fi moo bëgg yàlla bëgg ko anañu anañu bëgg yàlla bëgg leen lan ngeen def pour yàlla bëgg leen wallahu yuhibbu sabirin yàlla bëgg na ñi muñ kon nañ muñ nañu muñ jafe-jafe yi nañ muñ feebar yi nañ muñ jàngoro yi nañu muñ sunu njaboot nañu muñ sunu soxna nañu muñ lu nekk ku muñ nag doo dajjatu doo kepetu doo nekk di bëri wax da ngay muñ ngir yàlla fasbir wa ma sabruka illa billah muñal waaye non naa muñ rek xam naa xale yi ndeysaan bu ñu màggee bu liggéey rek léegi samay problème jeex muñoo naa muñ rek xam naa bu ñu ma embauché muñoo naa muñ rek xam naa bu ma tukkee mu ñëw parce que dafa am espace loo fi def wa ma sabruka illa billah da ngay muñ lu tax ngay muñ ngir yàlla ngir yàlla borom bi nee na wa ma kaana nekkul qawluhum seen wax ñoom gaa yooyu keroog ba ñu amee ay jafe-jafe keroog ba ñu amee ay problème ba ñu nekkee ci ay métit wa ma kaana nekkul qawluhum seen wax illa lu dul an qaalu ñu ne rabbana yow sunu boroom afriq alayna zunubana allahu akbar gaa yi ba ñu amee ay jafe-jafe ci seen xeex xeex yi ñu leen doon xeex di leen rey di leen jam xoolal tey monde islamique la ilaha illallah xoolal ni ñuy reyee jullit ñi Afrique centrale est-ce que yéen yéen a ngi seetaan journal est-ce que yéen a ngi dem internet di xool ni ñuy rey jullit ñi Centrafrique yéen a ngi gis est-ce que yéen a ngi gis ni ñuy reyee jullit ñi Burma yéen a ngi koy gis non loolu kenn ñemewu ko wane parce que gàcce la gàcce la am na benn jumaa joo xam ne dañoo bàyyi ba nit ñi nekk ci julli gi ñu ñëw rey ñépp kenn génnul chrétiens yi nga xam ne ci seen bopp ñoom la waa ONU Nations Unies yónni woon nan dem pour affaire paix yooyu biñ ñëwee ñu wan leen loolu ñoom dañoo toog di jooy ñu ne lii xamul nu ko nit def ndeke benn prêtre moom moo def discours ci Centrafrique mu ne ku rey sa ennemi lekk yàpp bi da ngay am doole gars yi di rey jullit di leen saam dugal ci kër yi di lakk di lekk xoolal loolu te leen dëkk baa ngi ne mu noppi ñëpp a ngi noppi kenn waxul monde bi yëpp a ngi noppi te xoolal benn jullit bu defee benn affaire rek xoolal ñooñu ñuy wax ñu ne ñu ne dañoo dem ñooñu ñëwoon Mali lu ñu wax xoolal ñii ah ñu ngi Mali ñi ngi reyaate Mali dara amu fa film la woon rek Mali li ñu fa doon wax ay problème mu guerre ay Sénégal di yónnee ay soldats nangam dara amu fa nañ leen gis équipe bu nekk ci guerre di di football coupe coupe d'Afrique Mali demoon Coupe d'Afrique ci ci année boobu mas ngeen gis dëkk bi guerre di football Coupe d'Afrique ah wuy leen ma dëkk bu am dëkk bu am problème di football Coupe d'Afrique ba pare li ci garaaw nag mooy am na ay nit yu nekkoon Sénégal naan waaw Sénégal lañ jëm fi xaw ma lan ay ay ay ay moo yu ñàng yu garaaw naa am na ñu ñu ngi fii de dañuy nelaw ah kon yéen da ngeen di nelaw loolu mooy lan ay wax yoo xam ne tegul fen yéen bu ñuy rey jullit ñi ngeen noppi su jullit ñi di fay ñuy wax dañoo laaj benn borom xam-xam bu mag ñu ne ko lu tax jullit yi nekk ay terroriste di reyaate rek ci àddina bi mu ne kan moo indi première guerre mondiale jàng ngeen histoire kan moo indi première guerre mondiale kan moo indi deuxième guerre mondiale kan moo sànni Nag- Nagasaki ak Hiroshima bombe atomique ana jullit lu mu def jeex na ana jullit lu mu def maanaam monde bi catastrophe yi fi def yëpp jullit def ci dara jullit indiwul première guerre mondiale indiwul deuxième sànniwul fenn bombe atomique kan moo détruire Irak kan moo détruire Afghanistan kan moo yàq Somalie Afrique bi ñuy wax ni musiba yi fi am ba ci Sénégal gi problème mu Casamance bi dañoo échec rek mais catholique yi la woon ak jullit yi parce que labbe moo ko jiitu woon dañoo échec xamatuñ ni ñuy def affaire bi échec na ñu daal di làqatu ci ginnaaw ay indépendance patarala mais christianiser Casamance moo leen taxoon a jóg dañoo échec nag parce que ab labbe moo ko jiite woon fii benn imam tey bu jiite woon benn xeex ci benn koñ lu ñuy wax les terroristes les fondamentalistes y a un islamiste sa te te te ba pare wax yi soo ko déggee sax da ngay tiit médiatiser ko ngandal ko fekk dara amu ci su jullit xeexee ñu ne terroriste islamiste su benn waaye xee de xeexee ñu ne rébellion ngir benn affaire ñu ne rébellion duñ ko tuddee loolu de jullit bii xeex fee kenn du ko tuddee rébellion de moom islamiste fondamentaliste terroriste loolu nañ ci yeewu waaye coono yooyu yëpp dal leen ñoom amuñ ci benn jafe-jafe pour muñ yow rabbana sunu borom afrique alayna sottil ci ñun ah nag ñu jéggal yërëm nu ndax sunuy bakkaar yoo xam ne dafa bëri sunu kaw nga jéggal ñu ko nanu yeewu ñu xam ne yenn wax yi nga xam ne gars yi dañ koy wax ci kaw jullit ñi di leen lëndëmal di yàq seeni pas-pas wa lazim hada kulluhu taala yaqulu lilmuminin lawla takunu antum mislahum wa taqulu qawlatuhum nee na lii lépp sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg a jàngal jullit ñi pour ñu muñ na gaa yu njëkk ya muñee woon na yonent bi muñee woon waaw mu ne wa israfana fi amrina yow yàlla yal na nga jéggal sunuy mbir baal ñu dafal ñu yomb téef ci sunu mbir yi wa sabbit aqdaamana nga saxalal ñu sunuy tànk nga dëgëral nu ko ba bis bu jafe-jafe amee du ñu buuse dañuy mel ni gaa yi meloon wan suur naa yow yàlla yal na ñu dimbali alal qawmil kaafiriin ci ay nit ñi nga xam ne ay yéeféer lañ bi li amee fa ataahumullahu yàlla indi leen sawaaba dunya yërmande àdduna xéewalu àdduna yoolu àdduna wa xusna sawaabul axira sawaabil axira yàlla fay leen ci àdduna fay bu rafet waaye alaxira aussi mu dencal leen foofu fay bu rafet fa ataahum llahu sawaaba dunia ay ataahum llahu taala sawaaba dunia an nasru wal ganima yàlla indi na leen ci ndib àdduna ndimbalam ñu gañe daal di samp islaam daal di séddoo alalu yéeféere la ñu amoon mu nekk maganim bu fekkee àllaaxira nag yàlla baal na leen seen bakkaar dugal leen aljanna mu ne wallaahu yàlla yuhibbu bëgg na almuhsinin ñi rafetal ñan la yàlla bëgg ñi rafetal sànq lan la waxoon fee yàlla bëgg na ñi muñ fii mu ne moom yàlla bëgg na ñi rafetal rafetal ci lan ci lépp rafetal sa jaamu yàlla rafetal sa nekkin rafetal say wax say jëf rafetal lépp kay lépp looy def rek na rafet inna allaha yuhibbu iza amila amal iza amila ahadukum amalan an yutqina yàlla bëgg na kenn ci yéen buy jëf benn jëf mu rafetal jëf ci sahaaba yi ne ko yeneen rafetal ci jëf ba sooy rendi mu ne waaw waaw ñu ne rendi nuñ koy rafetalee mu ne nga ñàdd xar mi nga ñawal paaka mi ba mu ñëw nga teel koo rendi mu tool a noppalu teel a dee noppalu julli lu muy def da ko war a rafetal lu tax inna allaha yuhibbu almuhsinin yàlla bëgg na ñi rafetal kon soo bëggee yàlla bëgg la da ngay rafetal liggéey bi ñu la jox borom kër gi ne la defaral ma kër gi na rafet nooy def da ngay def tout pour mu rafet booy peintre nga ne rafet boo koy tabax na rafet ah boo koy décorer na rafet bunt yi boo koy defar na rafet fauteuil yi boo koy defar mu rafet nit ki rek ngay defar ngay defaral nga bëgg même jigéen ji nga xam ne day togg añ sax da koy defar pour mu neex rafet set boo xee mu ne sii sama àllaaji bi moom laay defaral waaw téyër bi lay ñamal dafa bëgg mu rafet alaysa kazalik ah dafa bëgg mu rafet léegi yow mi defaral yàlla nag lan nga war a def kon fexeel mu rafet lépp looy def def ko ngir nga am ci tiyaaba ngir yàlla kontaan ci yow wallahu yàlla yuhibbu bëgg na al muhsinin ñi rafetal loolu mooy darsa tey ñu ngi jégglu njuum tey assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh